la ilaha illallah aawuzu billah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalib yi ni bàyyi xel noo ngi leen di nuyu nuyëb jullit ak mbokkum jullitam nuyëb mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ci jiital Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaka di ñaanal baax Serigne Amdi Fall moom Cheikh Mon Benda mbokk xam ngeen ne tey jii la talaata yemook ñetti fan ci octobre 2023 muy bis bi nga xam ne ci lañ fàttali ko jàmbaari lislaam Sidi Ibrahima maam Cheikh Ibrahima Fall lu ciy ñaanal baax nag Serigne Bassirou Fall alquran mi nga xam ne ci itam ci taxawaayam bis bi nosoo mbokk ñi desuwaat nag fas yéene àndat ak yéen en direct ci kër Sidi Ibrahima maam Cheikh Ibrahima Fall fas yéene ànd ak bokki jullit yi ak bokki taalib yi lépp loo xam ne xew na ci biir ëtt maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñu fexe faa dem taata nañ leen ko mbokk yi nag di fàttaliwaale ne ñu ngi leen di jaalewaale Serigne Cheikh Fall ñaan sa borom yàlla Guèye ma ànd ak sama caméraman Serigne Mahamadou Mamoun ñu dem nag ci biir ëtt kër Sidi Ibrahima yi fexe ba fépp fu mu ci doon rek ñu taataan fa ay kàddu jébbal ko bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel jërë ngeen jëf la ilaha illallah ñoo ngi leen di nuyu leen siyaare mel ni noo ngi fii ci ëttub Serigne Cheikh Fall Ndiaye Mbeng li nga xam ne tey jitaan naa dëkkaale jeeg sunu borom subhanahu wa taala waaye yàlla dëppale koog ne bis bi nga xam ne naka jëkk daan nañ ko taxawee di ci màggal di ci barkeelu ci jëmm ju sell ja Sidi Ibrahima maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii nag ñu ñëw fii bi ñu ñëwee nuyoog Serigne Saliou Fall moom Mamadou Moussa Fall waaye mu joxaat kàddu gi Serigne Mbacke mu fas yéene waxtaan ak bokki jullit yi ci kii nga xam ne moo fi bàyyi ko muy Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue bu noppee itam lu ñu ci mën a toftale ci bis bi nga xam ne mooy bisu maam Cheikh Ibrahima Fall rek ñu barkeeloo ko ndax albarakatu lil mutabarrikin bismillah waaw salaamaaleykum <clears throat> wa rahmatullahi wa barakaatu ci ndigalal sëriñ bi sëñ Saliou Fall mu sëñ Moustapha Fall maa ngi yëkk kàddu yi ni ngeen ko sàkkoo wax ci ñaari xew-xew yi nga xam ne moo fi am dajatee ji muy ñaar yoo xam ni bi ci bi ci ëpp yëpp am solo waaye dafa mel ni Euh, sarax si ci jëmm ji nga xam ne moom lañ koy moom la ñaanal muy sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng euh, yàlla na yàlla yokk leeram yàlla na fa daje ak maamam ak sëñ Tuba ci ci ci ci ci seeni mbaax foofa lu mu fa lu fa yéene lu fa bëgg rek am ko fa yàlla na ko yàlla def xew-xew la boo xam ne bii itam manees na ni aw aw aw aw métit la aw tiis la waaye itam manees na ca sant yàlla bu baax a baax baax ndax moom yàlla dimbali na ko ba bi mu koy jël ñu ne ci bis boo xam ne bi moom la waajal di tey jii di bisub suñu maam Cheikh Ibrahima Fall di bisub murit yëpp di bisub lislaam bépp ndax bis la boo xam ne bi ci la ci la ci la ku tedd ki sëñ Touba di léppam di sunu lépp ci la ko gërëme te lam doon liggéey ngir yàlla ànd ko ak moom kon bi bis boo xam ne bi bi bisu fayu fayu la bisu payoor la kon moom bu ñëwee dajeeg loolu loolu dañ ci sant yàlla rek waaye di ko ñaanal rek moom la la la gën lépp rek mu mu am ko yàlla ko yàlla defal loolu kon kon loolu moo dajale tey jii mu doon jëmm joo xam ne ji ju baax la nañ ko waxee fee bañ koy jébbal boroomam nit ku baax la te ab taalibe la te nekkub taalibi rek doy na sëkk ak mbaax loolu moo ne woon ci moom nangoo liggéey nangoo dégg déglu ndigal nangoo jëfe ndigal nangoo def lu baax ci jullit yi ci njaboot gi kon kooku mooy sunu kilifa gi nga xam ne wàññeeku na jóge fi tey jii waaw duñu ko jooy nag ndax euh, li ma wax li ma wax moo tax ndax li mu taseel tan mooy sunu ñu am ci yaakaar kon moom dana koy dana buñ dañ koy dañ koy dollee ñaanal rek yàlla bu ko yàlla bu ko cat topp ca fee mu jëm te sa borom euh, gëjël fi lu mel nii ba ba leen bëgg ànd ak sunuy kilifa ànd kook taalibe yi def ko eh, ngir yàlla yàlla defal nu ko noo ngi ci noo ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax di leen sant itam ci ñëw bi ngeen ñëw ànd ak nun ñaari bis yi nga xam ne benn la ñaari xeexoo yi nga xam ne benn la